Euh, je viens de proposer le meilleur des verres pour maintenir la fraîcheur dans ton bureau. Et en plus, il est excellent pour l'économie de la consommation électrique de ton climatiseur. Parfait. Cependant, celui-là

salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu mbokki juddi di mbokki taalibe yi mbokk yi nga xamante ni euh, mbokki internet yi bàyyi xel seen euh, chaine de production bi di Tawfekh production wala TP production euh, nekk ci YouTube bi nekk ci suñuy plateforme ci xarala yu yees yi mbokk yi ñoomaan mbégte te fa ci ay bés bi ngir nag jukki leen li nga xamante ni moom lañ fi taataan ci li nga xam ne moo di ay xeexo ci wàllum actualité moo xam politique social économique ak sur les plans Euh, waaye tamit également sur le plan religieux ñu koy doore ak euh, màggaluk Serigne Touba Xaadimu Rasul di am euh, ci nag fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bi nga xam nag door na démb di benn fan ci weeru safar te ñu nekk ñaari fan ci weeru safar atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci ginnaaw gàddaay ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi bés bu am solo boobee waral na nag ku tedd ki ki nga xamante ni ku nekk ko jàkk jàkkal ak moom sa yëpp dem ci ku tedd ki di Serigne Touba Xaadimu Rasul kooku mooy Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Basiru ibnu Cheikhul Khadim Serigne Touba Khadimul Moustapha euh, màggal googee nag ni mu ko baaxoo defee ni ko ay kilifa yi nga xam ne ñoo ko jiitu euh, ci xilaafa gi defee euh, woote joxe appel woote ndigal ndigal loole jib na jëm na ci nag lii di taxawaay bi nga xamante ni képp ko di taalibe di soppe war koo amal ci dëkk bu sell ba jëm jëfal ko jëfe ko jëm ci nag nettoyage maanaam seet seetal bi nga xamante ni Euh, baaxoo nañ ko ci def ndax nag ci atum 2008 euh, ci euh, taxawub sëriñ kii di nag Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Falilou yal na yàlla yokk leeram ci tas ñu barkeem dooroon ko ko nag ak mbokki talib yëpp amoon ànd ko ak ëxlu Baye rawati nag waa kër maam Ibrahima Fall jamono ji nag fa toog di sëriñ Cheikh Jëmmu Fall ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu tànd ak wér ñu gis taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ci lool nag di woote boo xam ne képp ku di taalibe war nga gaaw jëfe ko war nga gaaw def ci saw ñaq def ci sa doole ak lépp loo mën ngir nag liggéey boobu yi nga xam ne ko war nañ ko def taaral dëkk bi ndax ku nekk xam ne ni euh, lim bu takk ñooy jugee ci àddina wërngal këpp ci gox yi fasandikoo ñëw euh, teewe ji mm, bés bu am solo boobu mooy waral nag it set ku nekk xam ne ni l'islam ni nga ko bëggee ci set euh, di propreté loolu waral sang bu tedd bi nag di sàkk mboolem ki nga xam ne ñooy taalibe ñu euh, dëppoo ci dëppoo set googu nag bokk na ci tamit ñu fexe ba la xamante ni moom mooy gan yi bu ñëwee rek na seen xol sedd waaye li seen xol di sedd mooy nag nañu fexe ba dëppoo ak lépp lu jëm ci set di euh, set setal waaye tamit ñu fexe ba bu gan yi ñëwee ni ko sëñ bi waxee sa mboolem ko fi jaar ci ay kilifaam wax ko fexe ba maanaam wàcc lal yi jox gan gan yi génn néegi jox gan yi ah, toppatoo leen waaye toppatoo ak dëppooy ki ndénkaane waa kër docteur ndax ku nekk xam ne ni ah, mbas mile eh, jamono ji bokk na ci li nga xam ne mooy eh, actualité bi nit ñi di gën a eh, méngale ak wàllum événement yi tey ji nag ñu am événement boo xamante ni incha allahu rabbi bu sobee suñu borom daañ ci dëgmal kon nag ku gis Serigne Mountakha Mbacké ak lii di rek maskam nga gis sëriñ Abdoul Karim Mbacké borom makarimal ahla yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér moom Serigne Fallou takk maskam wane ci ay image nit ñi war koo mën a roy euh, ñu gis tamit Serigne euh, Mouhamadou Makhtar Mbacké euh, mi nga xamante ni nag mooy xalifa Daaru Xuddoos yi tamit ngeen gis ko ni mu ko defee ak yeneen kilifa yeneen dignitaire yoo xamante ñu ngi ci dëkk bu sell ba kon loolu misaal la masalan la boo xamante ni ñëpp ñoo ci war a bàyyi xel gën a mën a fexe ba kenn bu ñu bu ñu bu ñu la bu la sànni xeer bu ñu la bu ñu fexe ba li ñu lay séentoo fexe ba daal li nga xam ne moom la ñuy yaakaar ne daañu ko def duñ ko def dañu fexe ba taalibe yi am discipline am yar fexe ba set gi gën a yemb set yi du doon mbedd mi rek kër yi tamit nañu set ndax ku nekk xam ne carrière nit ñu bëri fa ñuy daal di fa fanaan nañ ko bale ba mu set pompa buñ ko mënee def euh, lii di désinfection ñu désinfecté ko buñ mënee defaraat euh, taaralaat fexe ba li ñu mën a joyanti ba nga xam daal di dëpp set ndax set tamit dafa bokk ci jaamu yàlla ci ponk yi nga xam ne suñu borom dafa sàkku képp ku dib jullit ngay set kon am na solo lool ñu mën a fexe ba lépp li nga xam ne sëñ bi woote na ko daal buñ ci gàll góoseel dara nañ ko jëfe noonu màggal gi ñu def ko ci